jërëjëf Diagne reer waaw reer ma def. waaw. parce que damaa xam ne lu muy jaay kii la ku ñëw. di nuyu géej waaye képp ma jugee. xam di nuyu sama gaay yi ma àndal ñoom bii baax ñoom bébé Balla bébé Mawlo gaay yu ma àndal xam nga entourage bi ñëpp ñoom si dama yooyoo gi yaa ngi comprendre di si woo sama gànnaay ay teg mi bi ñoom ñëpp. d'accord waxal ci combat bi nga si gaaw ngay bëreel. parce que combat bi dafa ma pression damaa bëgg a woote sama gars yi jàpp bis bi gën a taaru mais si kàttanu yàlla le 6 bii nii ñëpp dinañ gis ma war si kawam si kàttanu yàlla amatul lu ma si xel naa. amul si gisaaka amul lu si gisaaka incha allah boo ko jàppee lamb jeex. bu xeexee mu daal incha allah. waaw si gi yow. daa sonn mënul wax. sonn fan kii sonn. dama sonn waaw. ginnaaw ma sële yàlla ñu dina dim. kii nee naa sol xam la moo métti. waaw sama maa ñëwal lu rafet. waaw jàkkaarloo caméra la yaa mi ngi lële. waaw jàkkaarloo caméra la wax loolu dafa maa métti. waaw d'accord mais yow maa yow du làmb. di nuyu ñëpp ginnaaw ma sële yàlla ñu dina dim di sant sama ñaari waajur di Ba da ngay xaar. man maa la gën a maa la gën a pare toog kër nag di pap bi wër la ak yu réseau bi nga may dëkk man bu ma ak yow damaa yàgg a toj damaa yàgg a bëre sama combat bi ñu ma conseillé dama leen ma kenn conseillé man maa jaay sama bopp. ah barki Serigne Bamba maa jaay sama bopp kii laa mujj nekkoon léegi dama koy daan. le 6 noonu la ñëwee. le 6 waa jàmm ngeen si kàmb waaw waaw. tunnel fii tunnel waaw ma fi yaa borom son di nuyu waa Kélimane Diarra di leen a door mais maa kii du lamb waaw daa am lu ma bëgg a tontu léegi dane Abdoulaye Ba ma ne daa am lu mu jëfaate jibe xaaruna garab faate goodal gay sira bëjël aba yuubel bala am na lay waxal loolu damuñu fee si kàttanu yàlla incha allah maa ngi jox ñëpp rendez-vous incha le 6 si kàttanu yàlla ñëpp ñëw ñu xool maa gën a diga lu ñu wax fii xas-xas loo bëri na bëri na kan moo koy dëggal si ñëw incha di woo xam ñaax may woo bàcci dooy xamba ak asan ba leen di si combat bi di sama gars yi ñoom Sira xama ñoom Moussa ñoom Dara ñoom Dero Dia jërëjëf wax seen doom li mu ko daan defee kii day xaar kii ajara nu ma lan koy waxee ajara xaar mbay ma jaaga moom lay wallu si xaar lu bari doole may taxaw may sa koñ yónni ñaari booy sama koñ ma nooxu billahi sareet lañ yore ma yor oto. waaw ñu jaam fere mu nokku leen bu ko weede ay gees maan ma nokku leen ma ñu def le loolu ñu ko defati ci àdduna te moom fi laa koy defee di woo waa jàmm ci Kambaaw di woo sama grand ñoom Samat ñoom Babel Demba Thiam ñoom Zé gars ñoom seen si combat bi soxla nañ ñu ñu jàppale. jërëjëf merci beaucoup. bisimilah bisimilah rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla di nuyu seen tëb bi di nuyu ñu ku la suñu rek sa sant di nuyu waa Yoff Wakaam Yoff di si dëkk bu baax a baax a baax. samay laaw mu ngi lay napp rek. non kii mënu maa napp kii nii. waaw kii mënu maa napp wax jee fi nekk rek wax yëpp jaaru ko dañu ñaan yàlla suñu borom may dañu baaxee jour bi le 6 soreeku incha allah si kàttanu yàlla. loolu naa sa diggante ak moom. waaw mais nag sant yàlla ñu ndam bu ko soxla le 6 soreeku. yow daa def amul caaxaan. waaw dafa nii gars yi man laa jël normal. daa jël maanaam ak maanaam ci combat ku daan sant. waaw damay jox ñu may jàppale bu mel noonu sax maa ngi woon jërëm ñu sax ñu baax a baax. waaw combat bi combat bi. kii nii lan laa koy xamal. waaw laa ma jël ma ci wax ju bëri. waaw El Hadj Fallou Mbacke xam na ne bu ma yaakaar tey que ne. waaw bu taxee du ñu bëre deux minutes. mais kii yow la dëgg la ma la wax lu leer laa lay wax tamit kii du ma moroom. deux minutes mu daan la wala nga daan ko. fee laa war a toog mais du ma kii fee laa war a toog. waaw ndax bu bis baa dinaa ko trouvé fee laa war a toog du ma kii kii maa ko mën maa ko bu doole maa ko dàq bëre maa ko fit la waaw si lu mu yaakaar rek dañuy bàyyi lépp si loxo yàlla incha allah si kàttanu yàlla dama koy daan si barki njool maa ko daan incha allah dañu ñaanee loolu si si soo reetul wax jépp ko dëggalal sa bopp moo duuma la boo dëggal sa bopp moo maam Serapha du maa ngi yow maa la ëpp doole fu maa la dàq bëre yow tapet nga amoo fit lu leer laa lay wax fit man foo saa anti mooy suma mag. waxtaan bi ma ragal loolu ma la wax. Eh, kii tapetul daa bëri kese. kii tapet la bëri kese. leer naa la wax. yow doo tapet. jërëjëf jërëjëf kontaan nañ ci yéen wóor say ko wooteel 30 secondes. non salaamaaleykum. wooteel wooteel wooteel. waaw avant tout. di nuyu waa Yoff fi ma jógee bu baax. di nuyu sant waa Yoff fi ma jógee bu baax a baax di nuyu waa Ngor waa Wakaam di nuyu cité bu baax a baax yàlla na ko yàlla may ndam si combat bi waaw di nuyu sama gars. waa parcelle bu baax. unité 1 ba 26 unité 1 ba 26. ñu bu baax a baax a baax di gërëm sama atelier bu baax. gars yi jàpp nañu ma si combat bi a ni Aliou Kébé jàpp nañu ma si combat ni Tons ku ni Modou Badji xam ah nga Tons ñoom ñëpp jàpp nañu si combat bi. waaw dañuy waa Fass mën naa ko dàmbe Colobane di sant ñëpp temps bi ñëpp ñëpp di wax ne waa temps bi combat bi seen combat xam di gërëm sama gars yi aw fay Sambale maa lay séen mu ne lamb yi sa lamb la maa lay séen nga jàpp ci bu baax di di santaat Daouda Seck maa gërëm sama père maa ngi lay juse maa ngi koy gërëm bu baax di woo autorité yëpp. jàkkaarloo caméra yi bii wala nga jàkkaarloo sa adversaire. fóot sa fóot sa. bi nag da ngaa mer xanaa. damaa mer kay. waaye bisimilah. alhamdulilah ñu sant yàlla. julli si sangam bi Seydina Mouhamed Sall sama ñaari waajur sama adversaire lu ma koy wax rek bëriwul di tangul nugul saxaarul baxul ngeeru tangul nugul la ko seqale belende belende bi mooy mooy bu dul benn du la ko seqal taxaw na de eh séeréer or jama bi la séeréer or jama bu leen dogee séeréer or jama xam mooy séeréer or jama dara du séeréer ñuul dara du gor loolay séeréer or jama séeréer or jama bi la bismillah mina seytaani rajiim ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur gannaaw la mit tey sama xol dafa neex ba sëñ Fallou mooy sa mbooy yi ma àndaloon ñuy ñëw fii gayen dañ leen tànc ba sëñ Fallou loolu moo ma metti gayen def ay taw deger fii gayen xam lan la ñu bëgg a wax ñun duñu ay bandi ba sëñ Fallou buñ ñu def ay bandi waa àdduna la ñuy waxal média yaay nii gayen ñun duñu ay bandi buñ ñu def ay bandi luñ def non damay ñaan rek gars ñu bàyyi booy ba sëñ Fallou Mbacke. waaw d'accord dinañ leen bàyyi ginnaaw ñu ngi sant yàlla bu baax. di ñu suñu yonent bi sant suñu ñaari waajur. waaw di sant waa maintenant Lamine ñun ay tout temps la ñuy àndal ba sëñ Fallou bu jógee rek ñu jóg. promoteur bi laay waxal gars yi mbëri nañ ko jàppale tout man jëndagul naa quatre bolok maa ngi woon ak yeneen autorité yu ñu ñëw bar sëñ Fallou. Ah. lamb ji sama lamb. waxal si adversaire bi nag. nice gain bar sëñ Fallou Lamine kii dawul sama yaram gain. ah barke alxuraan li may bëree du ko bëree li may xeex du ko bëree. barke alxuraan bu xeexee mu dóor ko mu daanu. man la booy mën naa bi dama xool ko xool ko. waaye gain may ma loolu waaye tamit gain. kaay da lay dóor nga daan. kii bu xeexee moom du ma ko bu bëree ma daan ko une minute laa ko may. adversaire bi maa ngi si ko am tegal day xaare lu leer booy paya bi la booy parcelle bi kii lu leer sa téléphone nga dañ koo sàcc. dañ koo sàcc waaw. fii lañ ko sàcc. fii lañ ko sàcc. diggante ba. ah. ba diggante. nga naan la. eh soxla bu ñu alal du jaamur. aywa wala sa wala seen i bopp. nga naan ma iPhone 13. ki da ngay yor yoroo waroo. xanaa ma iPhone 13. wooteel wooteel leen di woo suñu waa dëkk waa Ndiané gu woo dëkk yu ko di woo waa Parcelles. 1 ba 26 di woo mafia di woo waa Gem waa Firi Bàcc bi waa Pàcc Sopim waa Église waa Niayes di woo waa Pàcc waa Grand waa Daral. duma as décor. Lamine gaay lamb dañuy yaakaar ba sëñ Fallou li ñuy jënd ñi bëri nga ak combat duñ ko jënd gaay dañu waa lamb gëstu ñun ay tout temps lañ lamb la ñuy yaakaar amuñu liggéey amuñu dara barki Seydina Mouhamed lamb ji laajal promoteur bi jëndal nan quatre bolok Lamine bar sëñ Fallou jox ko xaalis jox nañ suñu për suñuy suñuy biir kii suñu grand la ñoo ko war a le man sëñ Fallou di woo maintenant bi yëpp di woo waa boor boor boor yëpp maa leen di woo si combat bi Lamine Badou Diaw Zeyna Diaw maa ngi leen di woo si combat bi di woo nag autorité yi nekk maintenant bàyyi maintenant Bamba Fall suñu papa Cheikh Ba Seydou Gueye Bada Ndoye ba gaan maa ngi woo waa maintenant yëpp gaan parce que sama koy maa